laa ilaaha illallah sama xol bi billaay bàyyi ci nekk waaw. ak li caaxaanam El Hadj Abdou Aziz na ko yàlla yërëm tiitar la pour tarixa bi moom dañ koy tiitaroo jàkkaarloo nag Baye Niass ni ko yow yaay xalifa xalifa yi yow yaay sëriñu sëriñ si daf ko bind.

dem na ba ni Baye Niass yow yaay fekkee ba fekkee Cheikh Tidiane bàgg la yow yaay dëggal bi mu ko li may wax nag waxuma ko pour nga kontaan te waxuma ko si ànd xaal si dëgg-dëgg yow yaay xalifa sanaama Tidiane Chérif radiyallahu taala kooku nag su amee ñu ñëw si moom di dof-doflu di si dugal lu si bokkul ñi nga xam ni itam jubuñu di askanee loolu Baye Niass dañoo demul si cosaan ba doo gis ñalla yi nga bëgg a àtte faydu bi si ñàll yi nga bàyyi yoon bu yoon yoon bu yoonu Baay Ñas bi loolu du yoonu Baay Ñas te fekk woon loolu la sax amul tarix boo xam ne amul ñàll te bàyyi dafa waxal boppam billaahi wallaahi tallaahi ñii bokkuñ si mam man bokkuñ si Cheikh te mucc naa si ñoom gannaaw bu yàlla ak yenent bi ak Cheikh Tidiane ak ak Cheikh Ibrahim ak man mi ba mu muccee si moom yal nañu yàlla musal si si loolu ci nek ci ñal yi bàyyi ñes kenn mënu ko attaque ci sharia bu mu génnee àdduna Ceerno Muntaga gatal bu baax bi ñew na diko ci raw dom diko jalé mënu ko Seydi ñess wallahi atul ni moy ni num atul ni nomo e eh, yimbe sa nomo no horima hoore ma ngona al mudu cheikh tijan mënu ko ñes jëf tollu won nga si top sa gannaaw ñu top sa gannaaw bu la neexon nga ber sa mais nga des nga nekk taalibi Cheikh Tidiane mu ne ko aan Cheikh Tidiane faar noxtam mu ne yow Cheikh Tidiane daf lay tiitaroo wax jii nga ma wax léegi laaj bi nga ma laaj i ñaan ñi noo koy wax dañoo bëgg a téye seen taalibe yi pour ñu ñëw si faydu bi mënuñ leen téye ñoom ñëpp daañu fekk si bàññees jawul incha allah yàlla def na ko bu pare incha allah ga tey boo ñëwee Dakar tous les quartiers bàyyi dafa leen bàyyee woon Sénégal dem liggéey bitim réew tay nangu na fouta de Saint-Louis à Démankané tous les halpula village bo dem amna na Médina Baye dañ ko doon tere ay borom xam-xam ñoo fi dugg ay tanef ñoo fi dugg benn dof topul Baye mu baye len Dakar tay tous les quartiers de Dakar tous les quartiers de Dakar am plusieurs daali daali euh, daayira day continuer mag ñu bëri nak ñu talib Baye jeunes ñu upp nak ñu talib Baye ñom ñoy mag ñi dañuy dem noppalu ji. faydu bi kanam la jëm kenn mënu ko téye te du Sénégal rek bàyyi mu ne dana daj a afaax yëpp yëpp lay daj te bu ñu seetee Medina Baye ni muy demee wala faydu bi nu muy demee si bitim réew nga xam ni lii mbiru yàlla la soo ko contré du ko tere dem boo ko nangoo du ko dimbale moom day dem demu boppam rek wante yal nañu yàlla boole si ñu koy dimbale ñu koy dimbale dem yal nañu yàlla boole si ñooñu. barke yonent bi sallallahu ñu ngi la ñuy fàttalil ñu ngi fii ci géejawaay fekk ci fekk fii muqaddam bu mag ñu koy wax euh, Thierno Ahmad Ndiaye di kenn ci kenu euh, kër Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu di muqaddam bu mag comme ni koy waxee toujours ndax euh, tey bisu yowmul jumaa la ay muqaddam rek ñoo fi dajee jóge ci ay gox yi fasantikoo ci fii ci senegal di ay muqaddam yoo xamante ni itam ñu nekk ci bitim réew ñun ñëpp sëriñ bi mooy ki nga xamante ni moo leen lijaasaal samp leen ñu yori taali bi di leen gindi euh, noonu leen ko nara a topp ak yéen kenn ku nekk ak foog muqaddam nekk rek incha allahu taala fas nañ yéene ñëw feeñal la wane la sa liggéey bu rafet ak li ngay liggéey ci biir réew mi ak ci bitim réew mi yëpp incha allahu taala seen euh, sit bii di info réew mi point com dina ñëw fekk leen foofu incha allahu taala euh, xam naa laaj bi ñuy laaj ndax temps bi dem na ba pare waaye daneen profito balaa ñuy euh, tëj ak yow incha allahu da nga ko li nga wax da nga ko résumé tuuti ci tubaab ndax euh, comme ni ko Baye waxee ixtalafat alsinatuhum wala aqdu muttaxid bi rabbil hamdi awwalum hawza ba mu jeex Baye nee na seen pas yi wuutee na seen lang yi wuutee na waaye seen non seen lang yi wuutee na seen waxin yi wuutee na mais seen pas-pas yi benn la kon euh, bu ñu yàlla dimbalee ñu am sëriñ bi nga xamante ni da wax ak bépp làng comme ni mu ko limee awsaak euh, jarmaak bambaraak ku ne am na ko moo tax ñi bëgg rek nga wax ak askan bi tuuti ci tubaab waaye balaa ñuy yegg ci loolu incha allah dañ lay laaj maanaam euh, euh, ndax euh, xam yàlla ak yegg ci yàlla benn la wala duñ benn parce que avant Baye Niass radiyallahu anhu ñun liir nañ ci ay téere yoo xam ne wér na ne wala yàlla yi dañ daan yegg ci yàlla mais Baye bi mu ñëwee radiyallahu anhu dafa woote xam yàlla ndax xam yàlla ak yegg ci yàlla am na différence wala amul différence loolu rek leen bëggoon mooy point bi mujj bi. egg ci yàlla dafay mel ne dañu génn woon yàlla gaa ñun si yàlla rek la ñu mës nekk mais nga yëg ni yaa ngi si yàlla loolu mooy egg si yàlla lu dul yàlla xamul lu dul yàlla si misaalu xel rek boo jëlee ku nekk nga delloo ko si baayam kooku si baayam si baayam si baayam ba si aadama aadama fan la jógee di si suuf delloo ko si suuf suuf fan la jógee si ndox ndox fan la jógee si ñaq yenent bi yenent bi fan la jógee si leeru yàlla subhaanahu wa taala lan moo fi des wante loolu mbiru xel la egg si yàlla nag xel attunu ko yàlla moo wax si alquran fépp fu mu ngeen jàkkaarloo sama kanam ngeen jàkkaarloo fa lillahi al mashriq wal maghribi fa ayna ma tawallu fa sàmm wajillahi amul beneen prix bu ñu ko mën firi moo wax si alxuraan xool awwalu wal aaxiru wal zaahiru wal baatinu génnee sa bopp nga seet génnee si leneen nga seet génnee si lu mu mën nekk nga seet mënoo ko lii nag dañuy téye sa bàyyi day téye sa loxo ubbil si dënn poose si laa ilaha illallah muhammad rasulullah nga egg si yàlla loolu mooy fatu mooy la porte

yàlla mo lay tuuse moo lay tuuse moy waccé ci yow li nga xamni mo lay dimbale ba nga xam yàlla wante la budd muzakara ité la budd ñu téye loxo xamal la tour yàlla bu mag bi lan la ci alcorane la nek xamal la tour yenente bi ak wali yàlla yu mag yépp bu boba nak départ nga commencé nga dox baye muni ni fannaa fi zaati baqaa fil khilafati sayru abadiyah da ngay fànnaaw si jëmm yàlla ji ba mu jeex tàkk dara dootu fi nekk li may egg si yàlla nekkatoo fa yàlla moo fa nekk wante li may wax la budd nga ñëw ñu poosé si dana laa ilaha illallah fii la bàyyi rawee ñëpp wax na am na fu mu tooy sax mu ne wax ma leen na ngeen jàngi dama leen na ngeen mos boo mosee rek xam yàlla li ñuy xamlee yàlla mi ngi si alxuwaan ñun bu ñu nekkee xale dañ doon bu leen dem si ña siiw ay ay xaj yoo yoo xaj la ñuy jël suñ koy togg ñu boole ngeen topp leen comme xaj loolu yëpp contre woon Baye Niass moo tax ñu ko doon wax ñun de bu ñëwee salaat faati lañ jox yéen ñëpp salaat faati laa leen jox Medina ñëpp salaat faati lañ leen jox <coughs> Fuuta ñu si dugg ñëpp salaat faati lañ leen jox wala yàlla yu mag yëpp jógee si yeneen réew yëpp salaat faati lañ leen jox ak benn aaya alxuraan te loolu Cheikh Ahmad Tidiane tudd na ko dama ni taalibe Cheikh Tidiane bu mu mënti doon si àdduna nga weddi xam yàlla jàngoo jawaayil maa ni wala sa sëriñ nëbb na la jawaayil maa ni balaa nga ko si laaj lu mu xamul jawaayil maa ni képp ku tarbiyewul xamoo lu muy wax wante taalibe Cheikh Tidiane weddi ni yàlla dañ koy xam Cheikh Tidiane ngay weddi de yonent bi ngay weddi de yàlla ngay weddi de ku xamul yàlla sax lan ngay xam ak kan ngay xam man arafa nafsuhu faqat arafa rabbu ku bëgg xam yàlla xamal sa bopp ah wante xam sa bopp boobu foog nga am sëriñ bu la foog nga am bàññas boo amulee bàññas daa fi dàq julli daa fi dàq wir daa fi dàq wóor daa fi dàq ibaada yëpp mais doo dem fen bu ñu gisee nag ñel la génn fële ñu bëgg a askanee ñel bi faydu bi du fii rek moo am ñel ñel am na fépp faydu bi yërmande yàlla bu wàcc Sénégal la bu ko yàlla wàccee woon feneen te ñun ñu bëgg yàlla te ñu war wuti faydu bi nuy Hausa yi di ñëwee américain yi di ñëwee chinois yi di ñëwee noonu ñun noonu la deme demee mais ñun pays sous-développé développé la ñu amuñu dara mënuñu dax yàlla yërëm ñu wàccee ñu fi bàyyi ñës. alhamdulilah xam na euh, suñu. Euh, Euh, sañ kaddu gu mujj moy nga tagoto ak lan ngay denk ñi nga xamanteni ñom ñolay sétane ak talibé yeeg julliti yalla yépp té nga wax ko ci tubaab. lu denk moy ala kulli hal yalla mi ngi fi indé pour ñu xam ko rek bo am alquran yi daañu wax né dama wéddi alquran wéddi wu ma ti wa jinni wal insi illa liyabuduni yalla dafa ni jinni ak nit ñi dem leen bind rek pour ñen jaamuma waxu alquran la de waxu yàlla la hadis xudsi lan la hadis xudsi lan la waxu yàlla waxu yàlla am na bu feebar wala bu fo waxu yàlla yëpp dëgg la balaa alquran di wàcc yàlla ni kuntu kanzam lam uraf fa ahbabtu an urafa xalaqtu xalgan nekkoon naa ndàmb bu kenn xamul ba ma bëggee ñu xam ma mu bind mbindeef bi waxul buma ñu wala yalla lu mu lu mu si ñun bu ñuy bind moy pour ñu xam ko ku xamul yalla perte nga aduna perte nga ku ko xamul fi nga fi bo déxé rek nga fay doon wala bu la eh, si ben yaatam do xamé vous damay dénk julit yépp nañu wut ku leen bu ñu xamee yàlla nag ba pare ñu jaamu yàlla degg naa ñu wa maa xalaqtu jinni wal insa illaa liyaabuduni ñun wante dañ si teg ibnu abbas mu ne li yaabuduni li yaarifuni ibnu abbas moo wax loolu man lu ma d'accord mooy lu yàlla wax kuntu kanzam lam raf fa hababtu an urafa bu ma bëggee ñu xam ma rek fa xalaqtu xalqan lu tax mu bind mbindeef bi du ñu xam ko oustaz ku ko xamul perte nga yàlla mu ni si beneen hadis kenn si yéen mënuma jaamu sax te xamoo ma di nga jaamu bee mu waxoon mu teg si kenn si yéen mënuma jaamu te xamoo ma kon xam leen ma balaa ngeen may jaamu kon la primauté c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa taala boo xamee yàlla danga xam ni ñoo jaamoo yàlla boo xamee yàlla dootoo bokkaale yàlla jullit dana bokk dana jaamu yàlla fekk mu ngi bokkaale yàlla parce que xamul yàlla parce que daf koy misaal wutal ko bërëb xam naa vieillard màggal lay doon sax bu am sikkim bu wextal toog si juróom-ñaari asamaan di wax kun fayakun loo xamul il faut nga defal ko image te yàlla paase na foofu mu ne xeejuma sama kaw asamaan xeejuma sama kaw suuf benn place laa am mooy xolu jaam bu gëm jaam boobu lan lay gëm laa ilaha illallah maa ngi dénk sama bopp di dénk jullit yépp nañu ragal yalla ci du feñ ak ci du neub nañu jaamu yalla loolu la yalla bëgg ci ñun wante nañu jital xam yalla ñu xam niñ koy jaamo waxu yalla la maa ngi denk sama bopp di ko denk ñëpp nit du loo munul rek wala xamoo ko wala amoo ko keneen munu ko wala xamu ko wala amu ko cheikh ibrahim ñees yalla moko falal boppam kenn munu ci dara te day dem de te nit ñi bu ñu yéexee ñëw daañu perte tey fekk ñu raw leen bu yàgg wante tey Sénégal ñu ngi ñëw Mali mi ngi ñëw Nigéria ñëw na ba pare Mauritanie nga xam ni ay surafaawul ñëw nañu waa Màkk seen bopp Medina Tour Medina Baye bii dañuy gàmmu see dégg nga Indonésie ñu ngi ñëw Pakistan ñu ngi ñëw Inde ñu ngi ñëw France ñu ñëw Angleterre ñu ngi ñëw États-Unis ñu ngi ñëw Amérique latine ñu ngi ñëw Afrique du Sud mi ngi ñëw lan moo des Sénégalais bu ñu bëggee fii di nekk dañuy perte. té bu boba bu ñu pertee bu ñu dee ëllëg daañu gis xeet yëpp dinañ romb di dugg ajana bala ñom ñuy dem aljana yal yalla yàlla musal Sénégal yi alhamdullah kon euh, sëriñ bi ñu lay gërëm bu baax euh, ci téway bi ak ci xam-xam bi nga xamanteni jënn nañ ko fi euh, di wax né ni rek leen ko nar doxale ñu sarsé ñuko ci feeñal liggéeyu maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anu ci bir réew mi ak ci bitim rew yépp Euh, fu muqaddam ma a nekk ak lépp loo xamante ni faydu bi mu ngi ci yëngu rek incha allahu euh, danañ fa dem tàllal fa micro ba jëm ko jox jaami yàlla yi. Euh, tey nag ñu njëkkee fii muy première émission fii nii ci suñu ëttu sëriñ muy Maolana Thierno Ahmed Ndiaye di ñaanal ñëpp tawféex di ñaanal ñëpp jàmm. di leen wax na rek ba benen yoon inshallah ci benen muxaddam ak ci yeneen i waxtaan parce que inshallah téré bay ñu ngi fi daneen ko firi lu démé ni ruhul adab bi nga xamanteni ni Mawlana Cheikh Ibrahim mom moko talif ta fekk bo mo ngi am ñaar fukki at ak ben muy muy li nga xamanteni lam waxon rek wal ummatu khasdi fihim an asuquhum ila hadratil barir rahim ilahina bim xamé ne yàlla moko ko teg responsabilité bobu te mu xam ne kenn du yegg ci pay yàlla bi lu dul danga am ëdëb moo tax lim njëkk a def mooy taalif ruul ëdëb kon taalibe yi li ñu ciy jàngee mooy taalibe bu ne war nga fa nga nekk war nga fa am teg teggin am fa dëppug sharia kon loolu mooy li nga xamante ni moom mooy suñu moo tax ñu tuddee émission bi minhajul fayda mooy yoonu faydu bi nga xamante ni lépp lu faydu bi di rafet rek dinañ ko feeñal incha allah sëriñ bi dañ lay bàyyi nga ñaanal info réew mi. Cheikh Ibrahim Niass c'est le dépositaire de la faïda de Shanama Tijan Sherif anhu. Qu'est-ce que ça veut dire en résumé Cheikh Ibrahim est venu pour faire connaître qui est Dieu. Voilà la mission de Cheikh Ibrahim. L'islam, c'est connu, c'est écrit dans le Coran et dans les hadiths. Il n'y aura plus jamais de changement. La tariqa, c'est mon lana Ses Ces règles sont établies. Elles sont aussi connues. Cher Ibrahim, sa mission, c'est de rendre le serviteur, c'est de le rendre à son Seigneur. C'est de l'unifier à son Seigneur pour qu'il sache comment adorer son Seigneur. Voilà la mission de Cher Ibrahim et voilà la faille de tout Tidjani. Personne ne peut atteindre la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sans être disciple de Cher Ibrahim Ça, il faut que ce soit clair. Tous les chers qui disent aux autres qu'ils peuvent les amener à Dieu, ils sont en train de les tromper. Ils n'ont rien à leur donner. Tu as beau suivre un cher pendant 20 ans, il te dit, bon, ce qui est devant est mieux, ce qui est devant est mieux, ce qui est devant est mieux. Cher Ibrahim, c'est ce qui est présent est mieux. C'est le dépositaire de la faïda. C'est la porte de Shalam Tijani. C'est la porte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le calife d'Allah sur terre. Que cela plaise ou non, Allah l'a fait. Allah l'a fait. Et il a dit que cette connaissance que j'ai, si c'est un autre qui l'avait appelé pendant 40 ans, ça ne fait qu'augmenter. Moi, cher Ibrahim, j'allais, demander, je vais aller pour vérifier qu'est-ce qui se passe là-bas. Lui, depuis 1929, il appelle à la faïda. La faïda s'étend dans tous les pays du monde. Les gens voient des millions de gens entrer. Il n'y a que ceux qui n'ont pas de chance qui ne vont pas venir à la faïda. Et s'ils viennent à la faïda, leur islam et leur iman et leur ihsan deviennent purifiés par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son amatijan et de Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu. Celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il met croit. Dieu, il a donné à bail et c'est fini. Donc, en résumé, ce que j'ai dit, tout ça, c'est en Wolof, c'est long, mais c'est ça l'essentiel. La mission de Cheikh Ibrahim c'est de ramener le serviteur à son Seigneur. Chanam l'avait annoncé, il avait dit que le but de ma tariqa, c'est de prendre mon disciple et de lui dire, ha tu es là et le Seigneur est là. Et quand le Seigneur est là, toi tu t'éteins, parce que tu t'éteins dans le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la fana en Dieu. Euh, les soufiants, ils avaient ça bien avant, hein, cher, Ibrahim Mais ce que cher Ibrahim a amené, c'est la fana en Dieu, la fana dans le prophète, la fana dans Cher et la Fana dans Cheikh Ibrahim Niass. Et en ce moment, le serviteur, il devient Abdullahi Haqqan, que Dieu le fasse pour nous. allahumma salli ala sayyidina Muhammad. kon euh, mbokk yi euh, loolu leen leen indiloon euh, ñu ànd ceeg suñu caméraman di soxna Maam Jaara ki koy réaliser di Babacar Ndiaye Soda. ak euh, mboolem groupe info rewmi point com mon équipe euh, technique sa caméraman yi ñaan na yàlla wuti leen te barkeel leen amiin seen wërsëg ñoom ñëpp hmm. bu ñu ay jëkkër yan na yàlla barkeel seen sëy yan na yàlla may leen yu baax amiin yaa rabbi bu ñu amul ay jabar yan na yàlla may leen jabar yu baax ubbi seen wërsëg def si àlal yu bëri te barkeel yan na yàlla may leen lu ñu moomal seen bopp barkeel leen sallallahu alayhi liggéey bi ñuy liggéey l'islam suñ ko defee ngir yàlla incha allah yàlla dinañ leen dimbale ñun ñëpp ñu liggéeyal yàlla def ko ngir yàlla nañu si yàlla ñu def ko ngir nañu bëgg jaamu yàlla yëpp nag li may wax xasuñu kenn ñun ñëpp la ñu dëggal ñëpp man xam nañ sama discours yëpp loolu laay wax wala yàlla Sénégal yëpp yàlla daf leen def ay waliyu wante ki nga xam ni nag moom si moom laa sës sama ndigg mu Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahima Niass kenn féyteewu ko si kaw waxuma ko pour contre kenn dama ko wax que El Hadj Abdou na loolu Mouhamed Soukeyri ji seede na loolu wala yàlla yu gën yi mag seede nañ loolu te toppam itam seede nañ loolu boo seetee bàyyi ñu mu àndal nekk ay taalibeem nekk si ronam wallahi nga xamni ne ak kenn bo jëlee ku mel seyd Ali Cissé jël ku mel Ousmane Ndiaye jël ku mel euh Cheikh Oumar Touré jël ku melni euh Baye Mbaye Niass nga jël ku melni euh ñom euh, nu mu tuddati encore hein ñoom Cheikh ibrahim Fall de nga de moy ñooñu ci mag ñi la ci ndaw ñi nga jël ku melni ni Cheikhul Xayri loolu doy na doy na rek ñu ne Baye Niass mooy sewuñu Cheikhul Xayri doy doyna allahumma salli ala sayyidina Muhammad. jazakallah kon ba beneen yoon rek incha allahu taala. كلام الذي بلغت به كونك لا يدرك من مكاني اللهم صل وسلم على الحق الذي ترجعنا من عبدك الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته